Mm -hmm. mais cet exercice là c'est pas quelque chose de facile mais day am soubassement. waaw. Mm-hmm. jërëjëf euh, Bassirou Diomaye Faye amoon naa mbégte lool dalal la si sera mi gulet ma am yaakaar ne di nga fi ñëwaat ñëwaat fii incha allah euh, beneen laaj bu ñëw sama xel Sonko et la presse ndax jàpp nga ne position bi li ñu war a mën a entretenir la mu mel ni day am benn inimitié entre les deux réalisation bàlle ma rek bu ñëw la léegi léegi non non tu sais ce matin j'ai je jomb la sax gis nga parce que seen boobu la ko waxee. oui bi mu fi ñëwee woon waaye. li mu wax sur les journalistes corrompus. donc am na benn am na ki ma ko envoyé ma ne ko dama yaakaar ne que les assises de la presse nag dëgg dëgg dëgg jot na parce que bu fekkee ne ku jóg nga teg tuuma nga teg baaramu tuuma ci loo xamante ne mënta deñ c'est parce que aussi la corporation doit faire son introspection Sonko lu mu wax boo bëggee xam moom fu mu taxaw par rapport à la à la presse c'est de l'inimitié hein au contraire bu muy def le le lancement du livre solution pour un Sénégal nouveau mhm. Maïmouna Ndour Faye seen seen seen seen kii seen concert bi mhm. def ko ne lan mooy sa problème avec la presse mu ne Maïmouna je n'ai aucun la presse au contraire et que c'est même contradictoire de dire moo ko fabriqué ba pare naan fu mu jógee tirer sur la presse mais moom instant réseaux sociaux yi lay gën a kii day sax dem bay naan réseaux sociaux yi ñoo ëpp doole presse bi daf koy wax mais c'est vrai Facebook moo la ëpp doole foofu yow <laughs> non non man man d'accord Facebook non d' accord mais si homme politique si homme politique moom bu demoon ba nekk président de la république euh, dina soxla RTS. dina soxla les dina dina soxla les médias noonu mais il n'a jamais mën na opposant bi mu nekk moo tax ñoo si mais amaana bu demoon ba fallu suba mais mu jàppee tey ji allié non yaa ngi yaa ngi juum Diallo Diallo yaa ngi juum parce que à toutes les fois qu'il a dit ça c'est devant des micros de la presse kon sa jarul sax ngay naan bu demee ba fallu parce que ci fu mu koy waxee ci presse la koy waxee presse moo koy relayer relayer mais presque ñaata yoon la rapport de transparence internationale di génn avec le forum civil sur la perce l'indice de perception de la corruption ngeen bind police la plus corrompue liste des institutions la les plus corrompues mhm. police inspect les impôts la douane nangam nangam ñaata yoon cinquante et un millions de fois gisa bu mu ciy tontu Maïmouna Ndour Faye da koy ne Maïmouna bi ngeen ko doon wax fekk ma nekk agent impôt sama yoon du ci woon nekk parce que dans mon fort intérieur xam naa ne je suis pas corrompu donc je ne me sens pas concerné donc ku ci bokkul jàppal na bokkoo ci équite on te parle pas gis nga xam lan la ñu war a moytu yow mi nekk journaliste ak man mii nekk inspecteur des impôts ñoo ci yem le corporatisme baaxul jàllu c'est-à-dire la presse ne peut pas dire que je suis un sanctuaire inattaquable mm-hmm. parce que vous détenez une concession de service public mm-hmm. et vous bénéficiez de l'aide de la presse quand je dis vous je parle pas de Seneweb nangam je n'identifie pas je parle oui. de la presse. mais xam nga lu tax ñu dañu reproché loolu. après dès lors nag vous êtes concessionnaire d'un service public les usagers du service public. qui mhm. voient des impairs dans la façon dont ce service public là est délivré mais ils ont leur mot à dire. non sur ce plan on est d'accord mais beneen mooy yenn discours yi conséquences yu par exemple gis nañu fi ay reporters nekk ci benn organe yu dem di couvrir une manifestation de Yewwi Askan Wi ñu dàq leen kon foofu dañuy ñëwaat est-ce que nekkul yenn discours yi ñuy tenir euh, si yenn entreprise de presse yi moom mooy dem ba ba tàbbi si loolu. foofu noonu tamit question de responsabilité moom mooy dugg foofu. non non non dafa am loo xamante ne dafa am loo xamante ne euh, nit ñi soxlawuñu leader woon leen ko ñoo koy gisal seen bopp parce que yàlla dafa andi lu tudd Facebook wala YouTube wala je ne sais quoi ak smartphone ku ci ne téye ko sa loxo nit ñi di ci def ay contenu di wax ak nit ñi ñuy xool. c'est tout quand on prend quelqu'un dans une émission ñu ne affaire euh, Adji Sarr ñëw na qu'est-ce qu'il dit oui moi j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé dans cette chambre beneen problème même nature ñëwaat mu ne non sama jikko sénégalais def may dab dama ciy maandu ça les gens voient quand vous prenez l'imam Aliou Ndao ngeen defal ko ay titres suul ko en enfoncé ko pendant qu'il peut pas se défendre les sénégalais voient bu ngeen bàyyi ba nit ñi nekk ci biir campagne électorale en plein ngeen jël un candidat accusé ko de financement extérieur nga xam ne bu nekkoon dëgg ñun ñi ñu doon jiiñ ñun doon waaj a dissoudre suñu parti pour nemee ko tour ndax suñu militant à l'étranger xam nga ne bu ñu tuloo joxoon xaalis lu ci journaliste xam lu ci état xam moo koy parce que état moo ëpp journaliste moyen d'investigation kon nii kenn kon xam nañ ne du woon dëgg quand la presse se comporte comme ça di ko teg ci ay ndollu doomu aadama di jouer le rôle de briseuse de carrière mais les gens vont dire la vérité gis nga ku ñu teg baaramu tuuma ci li nga xamante ne sa jëf la. Mhm. mu metti la sa jëf moo ñaaw. et c'est sous ce rapport la que la presse. doit faire l'objet Ousmane Sonko ak euh, Youssou Ndour dañoo am problème personnel. non mais pourquoi. xanaa déggoo ko muy woy woy Youssou Ndour bi mokkal ko ba de man bu ma amee problème personnel ak artiste du déglu su ay woyam de. <laughs> mais Basirou jërëjëf amoon naa mbégte loolu dalal maa ngi doog a comprendre la moo tax ñoom Souleymane Thiou Diop et Sidi Diop naan da sopp macha allah dañoo baax rek <laughs> en tout cas merci beaucoup <laughs> ma sant la gërëm la bu baax a baax ci déplacement bi sant gërëm moo Modou Diop Mouhamed Sarr Euh, ak tamit Omar Sam ñi nekkoon si xarale bi jégaluwaat bu baax a baax DJ Baara moom ngeen di retrouver léegi léegi su ma jógee incha allah ak keppaar mu war a fas yéene waxtaanee ponk bu amoon solo boo xam ne day laal hip hop galsen jaa ngeen jëf wala leen suñuy programme.